bi def tournée économique xool nit ñi nga war a waxtaan ak baykat yi war a population bi moom nag nee na loolu dañ koo dëpp def ko campagne moom day génn bu génnee gisul musul gis nag na dem seeti daabo waaye baax na baax na cat mu ngi ciy dugg waaw cat mu ngi commencé dugg sama dugg pale bi waaye xay xay ñoom ñu ngi tourné daa boobu ngi lambar lambari fu nekk mu taxawu fa xay dem na Serekunda dem Kafinin ha fu nekk mu dugg di lambar lambari mel ne yaa ngi ngay melentaan fu nekk nga dugg fa man ma jóg wax hey soo dama bëgg a def kon moom ñu naan amoo droit parce que euh, njiit moo war a def loolu xay xanaa ñun bëgguñu moom li mu bëgg xay Banjul ngi nii ñu ne dañ ko feesal ah. waaye ñoom la seen ngañ waaye nañ ma bàyyi ma def man suma yoon nekku ci xay because dinaa dem suma daka ah. dinaa dem Banjul dinaa dem Serekunda Kafountine man duma daw duma dellu ginnaaw xëy dañoo yëg ne maa ngi commencé yëngal ah. maa ngi yëngal Sénégal yëngal Afrique ñëpp doomu Gambie yëpp nee nañu Dabo paa bi moo neex waaw paa bi neex parce que man because damay ñëw wax fula ak fayda xam na ñu ne dama am mbooloo man xëy man lii daf maa yëngal ma wax leen damay def meeting ñu ne soo doo ko fi defee tey doo ko fi defee ëllëg parce que président rek moo war a génn loolu mooy xanaa dañoo tiit waaye man tey naa leen xamal ñaar ay bu soobee yàlla because it's not country man suma bakkan bii dama ko teg ci Gambia ren duma dama nekk président bu soobee yàlla waaw dama ko nekk loolu laa bëgg loolu laa bëgg a am léegi nag yéen yi nga xam ne yéen a wax man maa yëngal da ngeen di génn ànd ak man because su ma nekkee man kese di wax rek te génnu leen xëy bu ñu jàppa man nañu ñuy jàppa dañu ñu jàppandoo ñu moo gën ba dama bëgg ñu jàppandoo ñu Afrique yëpp ak waa BBC because ñoom ñëpp xam ne da Darboe dafa dafa yëngal gësam waaye boole ma bàyyee ma taxaw nii rek di yëngal te nekku leen ci kanam man ñuy gësam te loolu bugguma ko ba pare ñoom xëy na xanaa xamuñu lu ñu xew ñoom dañu yaakaar ne seen pensée bi nit ñi dañu ko lekka tay déedéet duñ ko lekka de yaya amburu baro hey kenn du ko pensée gambi kenn du ko pensée gambi hey hey yaya amburu hey ngeen ne waaw yàqu. day yàqu. day yàqu. dégg nga. waaw waaw waaw.